yaa ngi am duodenitis yaa ngi am esophageal reflux eh, yaa ngi am yeneen feebar yu nga xam ne ñu ngi si biir bi dañ dee nuroo ni ulcer fekk na xaaju ñoo nekk ulcer su ko defee boromam lu dee xew dafa nekk di jëfandikoo garab yu nga xam ne actually niidut ko ba pare leetaroon dafa nekk si xelam bi nga xam ne su dara ne kuruj rek mu ne xay suma ulcer bi jub na fekk na du ulcer <coughs> ulcer naka lañ ko dee gën a mun a diagnoser danga am lu ñuy wax differential diagnosis eh, naka lañ ko dee mën a différencier moo nekk ne suñ la defalee endoscopie bi lu ñuy wax endoscopie cuub bi dugal ko si biir bi nataal ko dinañ mën a gis sa mucosal layer bi mën a xam ndax lii ulcer la ndax gastritis la wala ndax yeneen façon yi feebar la wala suñ la defalee lu ñuy wax barium meal x boobu noonu tam dinañ ko si mën a xamee loo tax bari na ñu dee ñëw si docteur Mbow ne maa ngi amee ol sax ma ree ma ne la naka nga xamee ne yaa ngi amee ol sax parce que loolu noonu docteur bi fu jaar mu daf yooyu noonu pour mun koo differentiate su ko dafut mun naa résolte njuumte gastritis nag moom moom moo si dee ëpp doole su ko defee ñu naan suma xol bi mu ngi lakka xol bi nekkul ne xol bi fu mu nekk ak fu butit yi nekk dafa nuroo ni Banjul ak New York <coughs> looloo tax su sa xol su soo soo amee epigastral pain rek nga ñëw ne maa ngi amee feebari xol wala suma xol bee nekk di lakka loolu waxin la rek <coughs> lu dee xew moo nekk ne under gastritis da ngaa gis ne gas content bi daf dee force lu ñooy wax cardiac sphincter bi bu dee close ubbeekaayi biir bi mu relax su ko defee cóolo gi éeg si kaw su éegee si kaw nag mu ñëw si kaw dënna bi eh, su ma mbokk suma mbokki faana faana yi naan xol bi dafa lakk fekk na xol bi xol bi moom mu ngi nekk si sa wet bi ci sa ron yeneen teeli faar bi si ron wen bi foofu la xol bi nekk te métiti xol dafa uuteeg eh, métiti biir buy métti loolu nit ñi war nañ see bàyyi xel torop euh, donc bi nga xamee ne euh, nit ñu baree ni am gastric problems yooyu noonu am na si ñoo xam ne dañoo forcer or lan lan mooy si sa uh, advice. ok soo amee feebari biir lu demee ni olsam wala lu demee ni gastritis eh, parce que da nga am yenn garab yu nga xam ne yooyu ngay bugg di jëfandikoo su fekkee ne si njëlbeen yow gis nga ne soo naanee garab yooyu noonu si bés bu njëkk bi wala ñaareeli fan yi sa oor bi biir ba nga laa giteel luñ la dee advice moo nekk ne ah sëñ bi ñu ndey suñ xelaat. moo nekk ne nga bàyyee gum or bi faju ba wér que su fekkee ne yaa ngi amee lu ñooy ooyee ol sax mooy guum bu dee nekk si butit yi nga oor da gis ne ñam bi lu ko dee tooga noonu dafa toogaale góom bi te loolu noonu mun naa liitoo condition bu ñooy wax euh, wax perforation nga toog rek biir butit bi bun na te loolu noonu su fekkee ne xew na eh, nuñ ko mun a solver problème moo nekk rek na ñu defal la laparotomie auprès de la pour mun a tëj eh, bona bona boobu noonu ba pare tamit mun naa possible mu cause erosion of the vessels vessels yooyu noonu eh, lifin yi chemical su nekk si biir bi da ngaa gis ne su fekkee ne ñam nekkut foofu noonu dañoo eh, toppa fu deret ji dee jaaree vessels yi te loolu noonu mun naa isi internal bleeding ngaay bleed looloo tax ñuy dee advice borom olsa yi ne buñ dee oor time yi weeri koor parce que suñu ooree ñam du nekk si biir bi ba pare loolu noonu mun naa result to complications yooyu noonu te loolu noonu boroomam du si jëlee tiyaabo de eh, parce que mu ngi lor boppam ne yàlla waxut kenn ne nga daf li nga xam ne daf laa or daf laa lor. donc ba léegi euh, ku am olsa mbaa gastrique lan moo ko dee waral sax in the first place balaa ma laa laaj beneen question. waaw yu si ëpp doole si ñun fii ñu nekk nii si Afrique moo nekk helicobacters yu ñoo wax helicobacters yooyu noonu ñaare eh, bari na luñ dee erode mucosal layer bi foofu noonu mu lead to ulceration o mu lead to eh, gastritis ak itamit eh, su fekkee ne tamit boromam daf dee xelaat torop ne eh, human system bi yëpp yuur gi moo ko amee su fekkee ne always yaa ngi stress oo di xelaat torop si tamit mun naa lead eh, to gastritis wala mu lead to ulcer su ko borom amee lan la war a moytu lu mu war a njëkk a oytu moo nekk ne di make soone ne jëlut eh, yu nga xam ne dañ bari kaane ñam yu bari kaane wala ñam yu forox yi torop yooyu noonu mun nañ koo isi lolaange ak itamit am na yenn certain garab yu nga xam ne tamit warul di ko jël maase brufen geeg yeneen garab yi yooyu noonu tamit mun nañoo increase wala yokka doole ulcer bi eh, moom lu mu war a def moo in the first place pour gis doctaam su fekkee ne docteur bi confirm na ko with the help of the endoscopy wala barium mil bi ak based on the clinical symptoms yu mu am mu ñëw to diagnose then da ngaa gis ne normally Eh, nuñ ko dee manager also ëpp doole gi yëpp moo nekk ne ñu jox la garab yu ñooy wax as to blockades yu demee ni ñoom omeprazole ak itamit eh, ñoomin cimetidine wala ñoom ranitidine ak itamit dinañ la jox benn façon ay façon yi antibiotique ay dañuy jox la erythromycine bi wala ampicilline bi ak plus metronidazole ak itamit dinañ la jox tamit xëy eh, na spasmolytic pain la lu demee ni boscopan normally yooyu lañ ko dee managé ak itamit pour wàññi acidité bi ñu jox la ñoom it maag try yan yan façon yi lekka la borom war a jëfandikoo daal lu mu war a gën a daf moo nekk oytul eh, ñam yu nga xam ne dañ forox torop wala ñam yu nga xam ne dañ am kaanee torop ne yooyu noonu dañ dee gën a yokk affaire si su boobaa looloo tax ñu si ëppa doole docteur yi di leen dee wax ne leen ne ah sëñ bi lu gën moo nekk ne nga wàññi kaane gi comme que soo ko lekkee dina métti sa biir bi wala soo jëlee lu foro dina métti sa biir bi ba pare tam boromam warul di nagu di xiif parce que su xiifee rek da ngaa gis ne enzyme su dee toog ñam bi yooyu yooyu noonu yëpp e, dañoo e, gën a yokk a bi wala dañoo gën a yokk a e, lifin bi naka la tuddaat ulcer bi Ah, docteur am na si ñoo xam ne dañuy dee wax ne olsa dafa ànd ak saan ndax loolu dëgg la. saan ak olsa dañ nuroo ni moo la fuladu ak euh, Amérique Canada nuñ sore wante parce que saan moom worms lañ nga am saan taxul ne am nga olsa wala am nga gastritis. te saan yi ëppa doole gi yëpp ñoom si small intestine bi lañ dee nekk wala si large intestine bi whilst sa most of the time si duodenum bi ak si stomach bi si boppam foofu la dee gën dee nekk ku am ulcer fan sa fan moo dee métti ñaare dooree ko soo ekkatee sa biir bi si kaw fii nii moo dee gën a téye xam nga biiri nit ki mu si